poroxaan bi accident ya ma ngay yokk diirug ñaari fan rek lanu seetlu ñaar fukki doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ci yoonu poroxaan bi jëriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk dem bi ak dikk bi Abdoulaye Daouda Diallo ne faaw nag ñu jël ci matuwaay ci accident yu bari du yàgg nag li nga xamante ni moom mooy dem beeg dikk bi ci diggante dëkk yi fii ci senegal kon daanu ko rek daal di arrêté bu 22h jotee ci guddi nee nag du yàgg loolee daanu ko jëmmal mi ko waxee nag ca diwaanu Kaolack ba muy dem rek kon di nemmeeku ji nag euh, maanaam beddi gi ñu nemmeeku ci doomu aadama yi singali ay nit ci ay procès euh, nekkin yu jaarul euh, yoon ci biir kaso yi rapport boobee la Amnesty International dal di génnee muy nag li nga xamante ne seetlu na ko ci Sénégal rapport boobe nag bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ ji di Ismaïla Madior Fall rapport la boo xamante ne dafay diingat àq ak yelleefu doomu aadama fii ci Sénégal te buñ dee xool réew mi àq ak yelleefu doomu aadama lu fi am doole la kenn du ko salfaañee ba tax na moom ci gis-gisam rapport boobu yu dëggu euh, Sénégal nag mënta génn ci guerre fileeg nag doole lu ñu of nag di kër gi nga xamante ni moom mooy xeex wàllub guerre jox ko ay jumtukaay yu mat sëkk euh, ki wax loolee nag euh, moom moo jiite département bu droit économique ak socioculturel bu RADDHO di ngeen déglu moom it ay kàddoom ci biir xibaar yi taskatu xabaar bi amadu mbay lu mu nekkoon taskatu xabaar te génn àdduna xëy nañu ko daal di denc tey jii ca sëkk yu yoof néewam nag ñu ko jëlee tey ci suba ci amoon fa ndax jege ñaale ñëw daan bokkal di liggéey ba ci délégation bi nga xamante ne nii njiit euh, kii di njiitu réew mi moo ko fa yabal ma nga woon foofee ci hôpital principal procès bu Khalifa Sall ñu daal di koy wéyal gannaaw nag ñetti fan yi ñu leen jagle loon muy avocat yi fare euh, ci défense bi fi mu nii nag weccoo kaddu la euh, ci diggante avocat yu fare ci défense bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy layal nguur gi agence judiciaire bu nguur gi nag yàpp na ni ba ñu dégloo ñooñee di avocat yi ba noppi kon nag amatul lenn lu ñu war a sikki sàkk ci daan bi nga xamante ne war nañu ko teg kon euh, kii di Khalifa Sall maître Ousseynou Gaye moom la mu gis rek euh, moo di ne euh, procureur dafa toog ci ay dossiers yu bari mbokki ponk yaa ngi ni ci yaatal gi léegi léegi jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média ni ko waxee ci euh, ponk yi limik ñu faatu nag ci yoonu poroxaan wi euh, mi ngi yokk ci accident yi diggante ñaari fan ñaar fukki doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan euh, démb ak tey fukk ak benn ñàkk nañu seen bakkan muy lim bu yéggi dayoo jëruñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk dem ak dikk bi di Abdoulaye Daouda Diallo ne faw nag ñu jël ay matuwaay ci accident yi nee na nag lu soxal dem beeg dikk bi kon ci diggante dëkk yi ci Sénégal léegi tey ñu jël ci dogal du yàgg jotee kon euh, bépp oto buy daw dafay daal di kon taxaw loole nag la daal di yëkkati ci kàddu euh, ca Kaolack ba mu demee rek di nemmeeku ñooñee nga xamante ne nag ñoom ñoo daal di accidenté muy sàkku nag kon euh, ci takk dar yi ñu daal di koy gën a dooleel ci xeex boobe ñu teewlu ko ci micro Ibrahima Diame. ginnaaw accident bi rek démb bu ma amee si diggante Nioro ak Porokhane ñëw masawu. nit yi nga xam ne dañu gaañu ci accident bi maanaam donc malade yi mu ñëw donc xool seen état nu mu toll ak fu ñu euh, seen faj toll euh, ci ndigalu président de la république bu ma ñëwee effectivement donc bu ma constaté ndeysaan que am nañu quand même fukk ak benn ñi nga xam ne gaañu nañ ci ñu ñu ñu ñu ñu ngi jaalee seeni mbokk Euh, di leen di ji ko jàll Sénégal yëpp surtout di ko jàll président de la république moo xam ne moo njaboote ñëpp mais aussi ma wax leen quand même benn ndogal bu important bi nga xam ne président de la république jël na ko def ni bépp malaat bi nga xam ne dafa accidenté su yoonu poroxaan bi euh, nañu ko faj ba mu wér te bu ñu ko laaj benn dërëm euh, xalaat nañu ne comme que su ngeen xoolee accident yi en général guddi lay am comme ni ma ko xalaatee woon xam naa dinañu ko defee noonu. moo di euh, fu si artiste si si si si si si fan yu ñëw incha allah euh, dinañu jël décision euh, interdire circulation bi maanaam à partir de dix heures si guddi maanaam benn oto waratul transporter ay nit. gën a dëkk war dem si beneen dëkk maanaam à partir de 22h jusqu'à 6h du matin. beneen bi moo di permis à point bi loolu it foog naa ne incha allah à partir de juillet dinañu ko expérimenté maanaam ñu teg loolu yëpp foog naa ne suñu ko euh, su suñu ko boolee ak surtout ñu gën a waxtaan ak ak agent de sécurité yi maanaam euh, les forces de défense et de sécurité muy police ak gendarmerie si kaw yoon yi euh, foog naa ne peut-être suñu yàlla mayee accident yi dinañu wan njëkk incha Euh, procès bu Khalifa Sall ak nag ñu ñu tuumaal ci caisse d'avance bu mairie bu euh, Ndakaaru ñetti fan yi ñu leen jagleeloon ñoom awkaay yi fare ci défense bi kon euh, tey ji nag la daal di noppi agence judiciaire bu nguur gi nag moom la mu jàpp rek mooy ba ñu leen dégloo ba noppi ñoom avocat yooyu kon nag daan bi nga xamante ne nii teg nañu ko ci kaw Khalifa Sall le procureur waxoon kenn waru caa indi sikki sàkk maître Ousseynou gay moom mi nga xamante ne avocat wu ville de Dakar la moom la mu xamle rek mooy procureur dafa daal di toog kon ci dossier yu bari Aminata Mbaare Sowa ñenn ñi ci cappaandoo procès Khalifa Sall ak ñeneen ñi ngi ko jàppandoo ginnaaw bi partie défense bi defee seen plaidoirie yi ak civil bi mu toll ni ku nekk di andi ay tontu ci keneen kii lu mu yooyu nag agent judiciaire de l'État moo njëkk a jël kàddu gi tey ci ci suba Antoine Diome ñëwaat na ci kàddu yenn avocat yi ne nguurub Sénégal amul woon benn intéret mu constitué parti civile Euh, ci procès bile ndaxte ñu bëri dañu jàpp ne moom subiru ci benn domage ak intérêt waaye Antoine Diome ci kàddum nee na avocat yi nga xam ni dañu yëkkati seen kàddu tey jile dina ñoom waruñu woon toog foofee ñoom monte ci 23 mars ak 24 mars 2017 ay fan rek ginnaaw bi ñu tëjee xalifa sal ak ñeneen ñi bindoon nañ leen ay lettres ci leetre yooyu lee dañu leen doon laaj ñu joxe seen kàddu ci demande liberté provisoire yi ñu bëgg a introduire moom mu ne nag tey ji lee mënul comprendre ñooñee ñëw fii ci tribunal bi dine groupe Sénégal amu fi place leneen li agent judiciaire de l'État yëkkati ay kàddu mooy constitution partie civile ville bu dakaaru moom nee na bu ñu sukkandikoo ci article 2 bu code de procédure pénal ville de dakaar amul benn yoon andiwul tamit ay pexe andiwul tamit benn pertement boo xam ni daana ko dal na ko ci procès bi ngir mu mën a constituer wu partie civile ba léegi ci ay kàddoom ki fa toogaloon groupe Sénégal nee na tamit euh, procès bile am na ci ay avocat yoo xam ne Khalifa Sall la ñuy layool yëkkati nañ ay kàddu kàddu yooyu rek bu ci procureur sukkandikoo woon dina tëj ay clientam loolu nag muy fàttali kàddu yi nga xam ne maître Bamba Cissé yëkkati woon nañ ko te di wax ci commande yi nga xam ni jëmoon na ci wàllu ceeb ak dugub. 23 bu neexee ñu wane ay firnde yoo xam ni ci coutume lañ koy sukkandikoo waaye moom jàpp ne leen loole lépp du tee Khalifa Ababacar Sall ak ñi nga xam ni jàppandoo nañ leen li ñu def ñoom ñoo ko def. fi mu toll nii nag daanaka procès xalifa Sall ak ñeneen ñi mu àndal léegi mu jeex ndaxte parti yépp def nañu seen plaidoirie yi fi mu toll nii kay ci ay réplique la ñu toll te réplique yooyu le procureur de la République ak avocat défense yi ñoo ci des su ko defee tamit juge bi di Malick Lamotte war a joxe ban date euh, lay délibéré ci procès boobule. wàññi nag euh, sañ-sañu euh, nit mel ni rek ku koy xoxatal beddi singali ay nit ci ay procès waaye tamit nekki ni ci kaso yi ñu ne dëppawul ak yoon loole nag mooy jàngat bi Amnesty International def loole nag mi ngi ko def ci téeméeri réew ak juróom fukk ak juróom ci àdduna bi may Maymuna Njaay lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama yi réewu Sénégal li Amnesty seetlu mooy ba léegi daf cee dellu ginnaaw ndax lu bari lu ñaaw ñu ngi ko fi nemmeeku mi ngi ko fa sa nag ci rapport bu mu amal ci atum 2017 jàpp 2018. bu bëggee xam lan moo doon sa biir réew da ngay bay nit ñi dox ñaxtu waaye yow nga ne kenn du dox ñaxtu. wala bokk saa yu naree dox ñaxtu duñu egg euh, fi nga xam ne fa la euh, euh, nguur gi nekk. ndaay enseignant suñu bëggee dox ñaxtu mais fan lañ war a mun a mun a dem moo ci seen buntu ministère de l'éducation nationale parti politique suñu bëggee dox ñaxtu ci wàllum élection ak leneen fan la ñu war a mun a dox dem ñaxtu mooy ministère de l'intérieur waaye yow nga décrété ne kenn warul dem ñaxtu ci bërëb yooyu. lu jëm ci procès yi niñ koy amalee fii ci réew mi mu mel nii dafa am kumba am nday ak kumba amul nday xam ngeen Khalifa Sall denc nañu ko euh, jàppoon nañu ko en 2017. n'est-ce tuumal ko ne dafa luubal alal réew mi dafa euh, sàcc alal réew mi dafa euh, def mauvaise gouvernance waaye li njëkk sate mooy euh, ci ci ci mbirum procédure bi eh, non seulement xalifa ni ko yoon santaane andi na caution ñu bañ caution boobu ci at mi passé am na ay doomu Sénégal yoo xam ne dañoo ñàkk seen bakkan ci loxo police ak gendarmerie au moins ñeenti doomu Sénégal ñàkk nañu seen bakkan te loolu yëpp li ko andi mooy maltraitance bi nga xam ne moom lay leen di teg ci bërëb yooyu. rapport bu 2017 2018 Amnesty International wax na it ci xale yi nga xam ni ñooy wuyoo taalibe nekkoon ci mbedd yi ñu bëggoon ne fee jëlee ba léegi Amnesty ne dañ ñoo sëlum suuf. nee ñu mun a euh, jëlee ay matuwaay yooyu. gannaaw publication bi directeur exécutif bu Amnesty Sénégal li mu bëgg mooy njiit yi ñu gën a sëgg ci nekkenu doomu aadama yi rawatina ci centre formation yu police ak yu gendarmerie ndax kat dañ leen fay def ay xeetu ñaawteef te Amnesty Sénégal ci kàddu Seydi Gassama li mu bëgg mooy ñu daal fi defar ay prison yoo xam ni dina dëppoo ak nekk nu doomu aadama yi bëgg na it ñu gën a sëgg ci ñi nga xam ni ñu ngi leen fi doon tuumaal ci lu jëm ci wàllu terrorisme rapport boobee ni nga ko waxee Maimouna Ndiaye Sénégal génn ci Amnesty International nag jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu yoon tontu na ko ndax jàpp na ne rapport boobee wérul ndax rapport boo xamante ni dafay dingat àq ak yelleef doomu aadama euh, fii ci euh, Sénégal loole du rapport bu nu mën a wéeru ndax loole lu ñu jox cër la fii ci suñum réew Ismaïla Madior Fall ñu teewlu ay kàddoom euh, ci micro Fatimata Ba du ñàkk ñu delsiwaat ci ñu daal di wax nag ci wàllub guerre gi ci Sénégal ñu gis ni réew mi mi ngi ci li ñu duppee zone rouge kon loolee génn gu ci ndax ger euh, sonal na euh, Sénégal ñu ne nag lu ni mel du fi jege fileek euh, doole lu ñu kër gi di OFNAC nga xamante ni moom mooy xeex wàllub ger loolee bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni moom nag moo jiite département droit économique ak socioculturel ca rajo Alioune Badara Diallo lay wuyoo ñu teew lu ko ak may Maymouna Ndiaye. kuréel bi nga xam ne taxawal nañ ko pour mu xeex got ger kuréel boobu amul sañ-sañ bu toll ni su jàppee ger fenn bu seetloo ger fenn mu mun a yóbbu affaire bi tribunal ndax dooleem demul ba foofu loi bi mayu ko doole boo xam ni dina mën a yóbbu mbir mi ba tribunal ñu layee ko foofu loolu jafe-jafe la nag dañ ko war a gën a jox doole ngir moom bu gisee ni lii ger la mu yóbbu ko foofu foofu muy foofu mu mbaxane nekkee benn. nag mi ngi fi Cour des comptes mi ngi fi ak yeneen ak yeneen bon waaye nag daal boo gisee affaire ger dëgg-dëgg nag moo ko war a yor. ger googee sax moom it ak rapport boo xamante ne nii nag kon forum civil euh, defoon na ko ci muy nag euh, Sénégal kon mi ngi ci euh, juróom-benn fukkeel ak juróom-benn place ci àdduna wërngal këpp ci Afrique nag mu nekk juróom-ñetteelu place bi loolee mooy seetlu gi ñu ne nag buñ ci jugalee sunu koom réew dana gën a dellu ginnaaw Cheikh Diop Thierno Laurent Mendy ci rapport bi nga xam ne ONG Transparency jot na ko fësal nga xam ne day dajale lu tolloog 180 pays ci àdduna wërngal këpp réewu Sénégal daal di taxawee ci 66e place ci tund wi waaye itam ci juróom-ñetteelu place bu ñu ko xoolee ci réew yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci tund Afrique. waaw ger moom baaxul moom ndax day découragé vraiment ñiy ñëw am xaalis bëgg a investir ci dëkk bi. parce que boo ñu investi ci dëkk bi te bëgg a lijjanti kayit muy traîner voilà bëgg dugal si xaalis fenn mu wóor na boo amee nit problème boo demee ci justice bi xëy na dina la jox li nga yeyoo yooyu yëpp dana tax day découragé nit ñi dana tax duñ sawar ñëw indi seen xaalis ci dëkk bi. bu ñu sukkandikoo ci kile nga xam ne xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu koom lépp lu soxal wàllu ger nag fii ci réew mi li koy indi li ci ëpp bokk na ci ñàkk ngor waaye itam charge yi nga xam ne rek daal dinay daanu ci ndoddu askan wi. waaye ci dëkk yu ndaw yi nag daf fee gën a gën a fees ndax boo gisee ñi nga xam ne dañ ci nekk di liggéey bu dee yaa ngi liggéey te payoor bi demeewul noonu soxla yi bari na souvent yaa ngi bëgg yeneen affaire yooyu mën a am pour mën di faj soxla yi loolu bokk na ci li nga xamante ni bi vraiment day gën a développé guerre bi surtout surtout ci administration ñi liggéeyal nguur gi yooyu loolu mu bari na ci trop. wàllum ger doon loo xamante ni dañ koo soofantal fii ci réew bu Sénégal ba tax ñu war cee indi ay dogal. solution bi gën a baax nag moom en tout cas doole ji gën a baax bokk na ci mooy les corps de contrôle ñi nga xamante euh, ñu gën leen a jox doole ñu gën leen a dooleel gën a jox aussi seen seen liberté maanaam ñu mën def seen liggéey te duñu am benn pression derrière kooku moom vraiment bu nekkee moom dana bokk lu bu baax a baax luy dindi luy wàññi donc ger bi wante tamit ñii di liggéey seen fay payoor gi ñu ñu xoolaat ko bu baax. bu ñu sukkandikoo ci docteur Gassama ba tey lépp lu soxal wàllu ger nag fii ci réew bu Sénégal xàmmeetuñu ngor loolee nag dem ba doon loo xamante ni dañ koy dund saa su nekk ci fàttali rek réew bu Sénégal nag jamono yii mi ngi ci ligne rouge loolee nag doon loo xamante ne ni baaxul dara ci koom-koom bu réew mi. lii nag beneen seetu la muy doing business ci atum 2017 ñeel nag wàllu investissement euh, muy lépp loo xamante ne nag kon nit ki bëgg na caa sóobu moo xam ci wàllu investissement lépp mën kaa yomb fii ci Sénégal nag ñu ne ñu ngi ciy def ay jéego yu am solo euh, classement bi kon nii la tëddee téeméer ak ñeent fukkeelu place bi ñu ngi ci euh, ci àdduna bi bu dee nag ci seetlu ba tey ñu ne ñi ngi ci top cinq ci réew africain yi loole nag di lu am solo bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni moom mooy wax ci turu gouvernement bi euh, di euh, Seydou Guèye euh, tey ji nag la ko xamle ci conseil interministériel boo xamante ne rek amoon nañu ko ñu teewlu moom Seydou Guèye teewlu ko ci micro Cheikh Tidiane Dione. mooy gën a kàttanal secteur privé national ndaxte mooy indi xëy te mooy tax nit ñi am koom-koom beneen bi it mooy coppite yi war a am ci biir administration bi ci wàllu taxawaay ak ci baral liggéey bi ci wóoral ko ndaxte la diir. mooy citoyen bi nga xam ne mooy consomateur yi mën cee gis boppam mën a jot li nga xam ne moom lay séentu ñetteel bi it mooy li nga xam ne mooy tax Sénégal nekk réew moo xam ni ni ko doing business di nattee ñëw def fi économie ak investir fi yomb na ndaxte dëkk bi nekk na dëkk bu attractif dëkk bu compétitif loolu nag bu ñu ko xoolee ci juróom benni at yi nga xam ni moom la fi président Macky Sall euh, juróomi at yeeg lu tegu yu mu fi defagum euh, am na ay jéego yu bare bare bare yu ci def résultat yi moom fes na ndaxte boo ko nattee ci lii place su Sénégal daaw ci doing business jóge na ci téeméer ak ñeent fukk ñëw ak ñeent fukk ak juróom-ñaar egsi ci téeméer ak ñeent fukk donc mu nekk juróom-ñaari place yu mu gagné mais boo ko tënkee ci ñeenti at yi gagné na ñeent fukki place donc loolu li koy mandargaal nag ci résultat yu ñoom ak effort yi Sénégal def senegal bokk na ci juróomi réew yi nga xam ne ci Afrique ñoo gën a soppi seen environnement des affaires donc ñu leen di wooye pays réformateur donc foofu nag la ñu teg suñu tànk pour am yéene ne Sénégal war naa mën a yootu ji bokk ci téeméeri xeet yi ci monde bi yi nga xam ni ñoo gën a wéy ci soppi seen environnement des affaires loolu nag Euh, waxtaan yi nga xamante ne nag kon ñi ngi ci doon euh, soobu lépp soxal nag processus électoral bi euh, fii ci Sénégal ñu ne nag ba ñu ci jugee rapport ba ñu ci def maanaam seetlu gi moo dina daal kon résultat yi ci seetlu ci ñenn ñi mooy daanaka parti yëpp nag déggoowuñu ci ndax am na ci ay poñ yoo xamante ne ba nëga kon ñii di parti politique yi ñi ngi wéy di ci weccoo xalaat lu ci mel ni bulletin unique boobee ñuy wax ba ci nag li nga xamante ni kon moom mooy wàllub nationalité loolu yëpp war nañ ko xoolaat sax loolee ñu duppee euh, système de euh, parrainage Mame Biram Diouf ci la buy lim poñ yi nga xam ne nag déggoo amu ci ak yeneen yi nga xam ni sax laaj na ñu sëggaat ci méttit lay am moom mu Ndiaye Cissé jëm ci poñ yi nga xam ni kon laal na juróom-ñett ponk ya nga xam ne ni moom la ñu nas ci terme de référence yi. ñaari moo ci am déggoo mooy ñu saytu ñu évaluer Euh, fichier euh, ki euh, refonte bi maanaam ni ñu defee tëggaatu fichier bi beneen bi mooy ñu def auditu fichier bi alors mu dem yeneen juróom benn poñ yoo xam ne amul déggoo bu ci war moo lu jëm ci parrainage maanaam condition yi ñuy participer kan moo mën a nekk candidat loolu déggoo amu ci mu jëm ci costion bi alors foofu sax lu tane si déggoo mun nañ ko wax parce que nangu nañ ne nañ ko wàññi ñaata lañ koy wàññi loolu xamaguñu mu jëm ci lu ñuy oowee Euh, statut opposition bi e son chef maanaam kii nekk njiitu opposition bi ak ban euh, statut lañ koy jox foofu déggoo amu fa ak nu ñuy rationaliser parti politique yi foofu itam déggoo amu fa am na beneen poince bu ñu waxoon ci wàllu mandat président bi parce que wàllu mandat président bi ñëpp dañu jàpp ne dafa am fulu ci ndax mën na def troisième bu deuxième ou euh, troisième ou non mandat nationalité candidat yi ba quel moment lay war a la ñu jàpp ne moom la wara a renoncer ci nationalité beneen bu mu amax yooyu donc bari na point yoo xamante ne ni déggoo amu fa. waaye it jaaxle am na ko gannaaw ba nga xamee ne sax lu jëm ci consensus googee néew na luñ ci am ak it lu takku ci opposition bi nga xam ni bokkuñu ci waxtaan yi waral tey ñu amal rapport gi nga xam ne ci fukk ak juróom-ñaari page la. ñu dañ profité ci cadre boobu oo ñëpp. maanaam opposition bi nga xam ne sax ñëwul woon ci concertation yi benn ñaar mu fexe point yooyu nga xam ne déggoo amu ci mu def effort déggoo am ci. collectif bi ëmb organisation société civile yi taxaw ngir élection yi ak plateforme bi boole acteur de la société civile ngir élection yi kon lépp mun cee leer di laaj kon njiit réew mi mu taxaw garantir droit de vote askan wi jaarale ko ci ñu bindu waaye jot seeni carte d'identité ci anam yi war. jébbal nañu ko boromam sànq ca suba ca sëk yu yoof muy Amadou Mbaylum taskatu xabaar boobee eh, génnoon àdduna néewam nag sànq la ñu ko doon jëlee eh, ci hôpital eh, principal mu nekkoon nag aw tiis foofee ndax jege ñaale ya ñamu daan ànd di liggéeyal ak délégation ba nga xamante ni njiitu réew ma yebal na ko fa ña nga fa woon ku ci ne nag indi seede bu rafet ci moom moomee nga xamante ne grand reporter de guerre la ñu ko tuddee woon ndax liggéey bu rafet bi nga xamante ne ni mi ngi ko doon def Alhassane Ba delloo njukkal ju mujj ci ki nga xamante ni ab reporter de guerre la jot a def ay théâtre d'opération yu bari ndaje bi nag ñu yéexal ko ginnaaw doomam nekkoon ci biti réew sàkk woon ñëw ngir fekkee ko xol yi tooy mu metti lool ci képp ki nga xamante ni teew na fi. il restera gravé dans le des hommes parce que les grandes actions survivent à leurs auteurs jafe na ci wax ci turu mbooloowu askan bu baax. ñu ngi marché wu ñëpp di ñaan yàlla li maamu xale bi wax di yaayu kii tëdd fii li yaa li maam ji wax ci sëtam bi toog fii ñaan ñu may ko mu ñëw fekkee daju waajuram un geste symbolique. ma gisoon leen teel ñuy xale yu tuuti ñoom Jibril Wade ndeysaan ak xale yi nga xam ne ñoo bokkoon benn kër maa leen luyeel kër bi ñu ñëwee télévision quatre-vingt mille francs la ñu waroon fay juróom ñaar lañu woon ak Adama Ndiaye yarax mu yàlla ko yàlla yërëm ñu bari nañu tuwarkal la Jibril Wade ñoom ñëpp xare yu baax lañu juróom ñaar lañu woon ma dugal leen ci benn kër ñuy def kër weer bu nekk ku nekk joxe dix mille francs motul quatre-vingt mille francs man directeur bu fab dix mille francs yokk ca ñuy fay seen luyaas yàlla ko yàlla xare àjjana nañ ñu bu nekk ab reporter bu mag nekk itam citoyen bu mag ab républicain bu mag moo dem nguur gi bëgg ko delloo njukkal ministre Augustin Tine teew fi jiite délégation bi njiit réew mi yónni mooy suñu xarit suñu wëllëre suñu doom suñu papa suñu lépp moo fi jóge tey muy Amadou Mbaye Loum euh, je voudrais au nom de monsieur le président de la République au nom du premier ministre au nom du gouvernement mais aussi avec la permission de monsieur le président de la République au nom des forces armées ça se comprendrait aisément parce que Amadou Mbaye Loum fut Il fut un journaliste, il fut un professionnel aux côtés des forces armées. ay kilifa l'armée bi njaboot jegeñaale taskatu xibaar wala sax fans teew fii ngir gunge kii di Amadou Mbaye Loum ci këram gu mujj ñu fas yéene ko denc ci sëkk yu yoof bokkoon na ña fa teewoon ministre conseiller euh, Youssou Ndour ak ministre d'État euh, mbay Ndiaye euh, moom moomee ministre conseiller yu Ndour daal di yëkkati ay kàddu nag seede ko ci kooke di mbay Mbaye ndax nee na tax na tey ji ba taskatu xabaar yu bare nag daal di spécialisé wu maanaam fare ci ab domaine ba gën caa xamee ñu teewlu seen i kàddu moom ministre conseiller Youssou Ndour ak ministre d'État mbay Ndiaye. man sama mag la woon doon koo xame ni que moom ak Chérif El se Sey na ko yàlla yërëm ak suma yeneen mag yoo xam ne Cheikh Mbacke Guissé yàlla na ko yàlla yërëm di sunu ay mag yoo xam ne que ñu baax ak Abdallah Faye ak Pape Sadikh Mbodj ñooñu nekk sunu ay mag yoo xam ne que lépp lu ñu mësaan a yëkkati rawatina ci wàll wi nga xam ne que mooy affaire journalisme ñoom li ñu ñëw laaj lépp looy gis rek dafa am ñoo xam ne yàlla mën na leen ci may ñu xam ko lépp waaye li gën a wóor mooy pàcc bu nekk bu dee am na ku fa xarañ dana tax euh, buñ boolee doole yi mu baax loolu mooy wane ne que ci média yi tamit dafa am ñoo xam ne dañuy gis benn yoon war caa jaar mbay lu nag wane na yoon woowu tax ndax moom wàll wi mu jëloon mooy xamale armée ak réew mi xamalee aussi euh, njëriñu armée ba nit ñi bañ a ragal armée xam ne armée mooy nation waaye mbaylum liggéeyam seede yi wane na ko mësul yàq mbaylum liggéeyam wane na ko seede bi wane na ko ko xamoon euh, liggéeyam la ko amoon Euh, mën a denc secret la. alaaji mbay luum yal na ko yàlla xarel aljana yàgg naa ko xam ñoo bokkoon Gaston Berger Kaolack euh, xam naa ko xam naa seen kër Kaolack këru mbooloo këru euh, këru famille nit ku baax la nitu jàmm la woon et donc buñ ko ñàkkee ñàkk nañu professionnel. boo xam ne liggéeyam daanaka def ak njàmbaar mais daanaka def ak dayo dayo yal na yàlla oyofal suuf ca kawam te xaare ko àjjana doyen mbaylum mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen bu baax a baax yen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti Chérif Dia mi ngi waaj ngir faram-fàcce leen xibaar yi ci nasaraan jaa jëf.